Euh, loolu loolu aussi ngeen di abone bu leen ko di fàtti benn yoon ngeen di abonné di activer euh, la cloche de notification parce que dafay nekk euh, lu am solo lool pour que aussi ngeen di mën a jot li nga xam ne moom mooy suñu ay live suñu ay vidéo en temps réel bu ñu jógee foofu dañuy daal dem ci réponse bi nga xam ni Seydi Gassama Amnesty International daal dina koy jagleel président Macky Sall parce que président Macky Sall dafa def ab tweet di wax que ne ki nga xam ne di le président Julius euh, euh, euh, Mado Mado Bio devrait aussi venir au Sénégal voilà non non loolu loolu loolu Seydi Gassama ko wax moom nag président Macky Sall mi nga xam ne ne je remercie le président Julius Mado Mada Bio mhm. pour son accueil convivial et les entretiens constructifs que nous avons eu ce ce 23 euh, pour euh, l'apaisement de la situation en mhm. Sierra Leone euh, suite aux événements du 26 novembre loolu président Macky moo ko daal di xamle. Mhm. di remercier bu baax a baax président bi ak ci waxtaan bi nga xam ne am nañ ko waxtaan boo xam ne waxtaanu jàngale la. Mhm. waaye tamit ngir apaiser situation bi nga xam ne Sierra Leone am na ko léegi du coup ci 26 événement 26 novembre léegi nag ba mu bindee boobu li tweet moom Seydi sama daf ko daal di tontu que président euh, Julius Maada Bio euh, devrait aussi venir euh, au Sénégal pour apaiser la tension politique et obtenir la libération des nombreux opposants et activistes qui croupissent dans les prisons insalubres surpeuplé mhm. il y en a moins dans les prisons sierra-léonaises mu nag nekk benn benn boo xam ne moom Seydi Gassama apporté na ko président Macky Sall mhm. euh, ci tweet bi nga xam ne lii luñ ci mën a mooy que euh, tension bi xam ne am na ci réew Sénégal mhm. euh, yi nga xam ne am na ko fi que ça soit ci opposant yi wala activiste ak lu ñu mel wala sax sénégalais lambda bi mu nekk ab tension boo xam ne ñu ngi xalaat naan est-ce que duñu reporté parce que lépp amoon na fi du coup ca moment boobu le président Macky Sall dem ngir apaiser situation bi nga xam ni am na foofu noonu ca Sierra Leone mu nekk nag ab mbir moo xam ni euh, kenn xamul lan nga ko mën a dikk. waaw xam nga xam nga président Macky Sall moom euh, comme li ñuy wax c'est un habitué des des des des faits. Euh, defe naa lu mu xat-xat xat diggante Russie ak Ukraine sax def na ci voyage. man damaa yaakaar ne moom fi mu ne dafa nekk di di di wax ni fii moom damay dem moom waaye xam naa ne kérosène dafa des. xam lañ ko fi bàyyil ci kérosène la bëgg a bala moo dem parce que tukkeem yi moom <laughs> mooy loolu mais cest dire doo comprendre yow yaa ngi bàyyi sa dëkk yow lu lu gën a compliqué mooy li ma lay expliqué nii maanaam euh, président Macky Sall dafa dafa xaw ma nag pour quoi peut-être loolu ci moom la mais dafa bëgg jaay boppam à l'international. Mm-hmm. maanaam dafa mel ni benn borom kër boo xamante ne nii waa kër gi bëgguñ de mais fu mu ci mbedd mi dina jéem a incarner euh, benn benn leadership boo xamante ne nii voilà dafa am benn respect boo xamante ne nii nit ñi dañ ko ko jox. Euh, man la fois maa ngi ko fi wax. Euh, muy euh, manière bi nga xam ne nii daanaka nit ñi commencé nañ ko démasquer la person Macky Sall parce que dafa teeloon euh, investir ci loolu maanaam bëgg am benn posture boo xamante ne nii à l'international dafay wane ne moom c'est un démocrate c'est quelqu'un boo xamante ni dafa respecter démocratie mm-hmm. et même récemment ak décision bu bi mu def ci respecter la constitution sénégalaise par rapport ak troisième candidature bi nga xam ne renoncé na si président Macky da ngay gis maanaam yow imaginez par exemple Russie Ukraine président Macky Sall dem ba toog ak Poutine ne day régler ay problème te au même moment dans pays maanaam ñii ndox ndox ndox. ndox bi nit ñi nit ñi mënuñu si jot. Mm-hmm. dëkk boo xamante ne maanaam mbënd nawet bu ñëwaatee incha allah xam naa nar nañ dugaat nar nañ dundaat. Euh, même euh, coono yi nga xam ne ñu ngi ko doon dund. c'est-à-dire dafay bàyyi li gën a primaire. ci biir dëkkam. Mhm. mu dem feneen di la yow président Macky Sall fan lay dem di lijjanti ji ay ay tension te pourtant mu ngi imposer profil boobu ba fu mu dem xëy na toog waxtaan wax waxu démocratie. voilà soo dégloo par exemple discours ba ma def ONU mais da nga naan mais kii wax kan la. waaw toog ONU di wax waxu démocratie il faut que njiitu africain yi lii il faut que la. par exemple. Euh, mbiru mbiru mbiru pëcc yi nga xam ne ni am na ci réew yu ñu jege am Burkina am au Mali am en en Guinée am ci Niger le euh, mhm. président Macky Sall dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a am posture euh, di ñaawlu loolu xew foofu noonu gannaaw ba tubaab yi ñoom it amee posture boobu tout temps moom dafay am cette même posture di wax ne day ñaawlu di ko naqarlu ba léegi ñu ngi koy naqarlu sax mbiru pëcc mais récemment gis nañ président Macky Sall ak mu foto ak pëcciste et moment boo xamante ne moom dafa dafa dafa il avait refusé de prendre une photo ak ko xamante ne nii euh, président euh, putschiste la nu ma ko mën a woowee. moment boo xam ne maanaam yow yaa ngi ne kii du ma jël ak moom photo wala du ma toog ak moom parce que ni mu accédé ci nguur gi mbiru coup taa la ëllëg ñu seen na nga taxawaat keneen koo xam ne militaire la comme moom ci même condition yi la jëlee la jëlee réew donc xam nga man priorité Sénégal yi mënuñu fay nekk am loo xam ne nag. Mhm. xam nga liñ naan ngay sàqami te sexoo. te kenn sa bopp ngay nax. dëgg la sa dëkk fii. waaw euh, ak tension ak situation bi fi nekk emprisonné aussi euh, son principal opposant bien vrai que ni ngi mbirum. Euh, xam nga lu tax mbir yi muy nduru ne. tension amul uh-huh. tension dafa am ba léegi dafa mel ni tension amatul. parce que nit ñi xam nga temps Covid dañ daan wax ne boo Covidee boo Covidaat après da ngay immuniser. waaw dañu commencé immuniser ci ci ci coono gi ñuy dund ak xëy na parce que euh, li gënoon a nekk problème ci citoyen sénégalais yi mooy ndax lii dina jeex bis. dina jeex ndax dina jeex ba ça veut dire mooy euh, situation yi ñu koy dund yi sénégalais di dund ñu koy dund mais xamuñu kañ lay jeex mooy euh, le président Macky Sall mi ngi wax nii oui nii non soo ko laajee si troisième candidature mu ne la bon su ma si waxee après samay nit lii ak lii ak lii dut boobu noonu amoon daanaka moo gënoon créer tension. problème mu sénégalais moo nekkoon jamono boobu. Euh, tension bi ñuy dund nii moom kañ la nar a jeex parce que waa ji di wax nii wii nii non ça veut dire que moom dafa bëgg a imposer une troisième candidature surtout imposer troisième candidature moom mi yor réew mi 2012 ak léegi ñu nekk di dund situation yi nii kon ñun ça veut dire moom daf ñuy prolonger laat suñu cawno yi nekk di dund. Mm-hmm. léegi jamono ba nga xam ne nag waa ji génn na ba wax ak ñoom ne leen mbir mi kat jeex na damay teg sama candidat Amadou Ba. Mm-hmm. nga xool Amadou xam ne Amadou bii wax dëgg yàlla jegewut gagné élection cest boo nekkee kaso sax da nga ne wut sa benn foo tëdd rek dem lemu fa xaar deux mois noonu métti wut. Mhm. cest à boobu la nit ñi taxawee mooy euh, comme que mbir yi daal xam nañ ne moom lu mu métti métti métti métti métti métti métti. Mhm. le 2 avril. 2024 euh, 2024 dinañ am beneen président bu bees te ñun ñii ci Sénégalais ñu ñoo war a tànn ki war a yor réew mi non foofu nañ may sénégalais possibilité boobu la aussi. c'est ça léegi foofu la problème bi nekk. Mhm. sénégalais daal xam naa li ma leer moom mooy fi mu ne nii ñëpp pare nañ et que pare nañ pour pour pour pour voter benn problème lañ amoon mooy mbir mi ñu dund kañ lay jeex et que actuellement gis nañ ne bu ñu amee taxawaay dëgg fii ak ñaari weer mbir mi souvenir lay doon ci ñoom. donc mhm. tension ba ñu amoon dafay dem ba dootul nekkati tension. pour revenir ci voyage yu président Macky Sall. voilà munoo bàyyi. Mhm. loolu yëpp donte ndurootu tension la parce que réew mi gisatoo ko taal. gisatoo ko xuloo même moom na. même fois mais mais mais tamit moom moo dogguma la mais boo emprisonné aussi sa principal opposant mhm. parce que mi ngi koy xamal ne ko euh, maanaam détenu yi am fii nii surtout détenu d'opinion yi politique yi am fii amul foofu loolu ca Sierra Leone kon mi ngi koy xamal ne ko li am fii nii amul foofu sax te kon fii moo ëpp tension ko foofu lee. voilà waaw moo tax fii dafa am tension mais tension bi dafa mujj soppeeku. ko ab dal. ok nit yi am na lu leen naqari mais dañu dem ba am une autre manière de la manifesté mhm. parce que tey boo nee ba président Macky Sall def discours di wax wooy dañu bëgg indi kaawoo si dëkk bi gaa yi génn na ko saa waay ñun kaawuñu xuloowuñu xeexuñu. kenn xeexut kenn yëkkatiwut xeer kenn taalul kenn tojul. boobaak léegi gisoo fi kenn kañ nga mu gëj a gis si at si si dëkk bi ñu ne la puno puno yow xetu puno kañ nga ko gëj a xeeñcu Mm-hmm. amatul si dëkk bi yàlla continuer nii yàlla continuer nii incha allah ñu lay continuer ba élection yi passé mm-hmm. puno puno sax du la xeeñ ci biir dëkk bi <laughs> donc loolu ça veut tout simplement dire que les euh, mm-hmm. jël nañ seen décision et xam nañ ne comme que dinañ dem ci élection ala kulli xaal ñoom dinañ def seen choix et que ki nga xam ne moom lañ bëgg a porter à la tête du pays dinañ ko fa porter mais li ëpp solo mooy le président Macky Sall ni du nax boppam <laughs> munoo munoo bàyyi sa cest di dëkk boo xam ne dañu fi fiy emprisonné ay nit ñoo xamante ne nii dañu xëy par exemple Cheikh Oumar Bamba Diop dafa xëy. waaw dem cité kër góor gi. ba tey yi maanaam des gens yoo xam ne dañuy taxaw si kanamu juge laa la wax juge juge bi di posé question kii lan moo ko indi fii. ak kan moo ko defeere ak lan la ko defeeree. nga am situation boobu dëkk boo xamante ni maanaam dañuy persécuter ay nit di leen tëj jàpp nit damm ay loxo damm loxoom ak tànkam yóbbu ko prison. Mm-hmm. Pape Abdoulaye Touré. et dans ce même pays dans ce même pays président génn dem feneen euh, ne day joxe leçon de morale man de bu doon man la seet si dama ko naan saa jëlaat la sa bagage nga dem yow mënoo maa yedd. ok ok. <laughs> non <laughs> daal ñu ngi koy xaar moom mi tamit comme ni mu ko seetee moom mi tamit mu daal di def. Euh, tamit euh, euh, même chose même que président Macky Sall daal di seet si ko fii tamit waxtaan ak moom ngir ah mais loolu la moom itamit na ñëw comme que président Macky Sall dem na pour après situation boobu lekkee ñu moom moom itamit na ñëw na ñëw daal di mën a tamit calmer wala apaiser situation doo envoyé doo doo doo def benn message pour Euh, secrétaire général des Nations Unies. ne ko na xool meelam bi am na lettre yu bëri yu fa nekk ak boîte à lettre bi. l'essentiel mooy que askanu Sénégal daal ñu ngay dénoncé ñu ngay dénoncé parce que moom maanaam sénégalais yi dañ ne carrément que ni euh, genre situation bi ñu dund fii nii. Mhm. ak euh, discours yi nga xam ne parce que tantôt yaa ngi koy wax ci wàllu ONU muy soixante quinzième euh, soixante quinzième anniversaire boobu li nga xam ne ci mhm. wàllum droit de l'homme lañ doon daal di lañ doon wax ba sax Alioune Tine ñu ngi doon saluer saluer décision bi nga xam wala discours bi nga xam ne discours historique bi nga xam ni mhm. président Macky Sall amee fa ci wàllum ak ak yelleefu euh, doomu aadama li ni mel aussi wala même discours la ñu bëgg tamit mu tëni ko fi mais ak ay actes yoo xam ne actes yu solide la et la nga xam ne ñu koy gis mu koy au niveau international euh, ak li am fii nii euh, c'est diamétralement opposé moo waral askanu Sénégal képp ku mën dénoncer ko ci ay kii yaa ngi dem defoo ko nag parce que mais da nga koy def parce que bëgg nga won ñu la ne kii lim leen wax fii ak euh, ñun lu ñuy dund parce que ñun ñoo dund mbir mi le euh, que ne c'est diamétralement opposé mais daal nekk na ab euh, mbir moo xam ne ginnaaw ba mu ko waxee Seydou Gassama moo ko daal di tontu bu baax a baax a baax ca boobu le mbir bi nga xam ne rek moom président Macky Sall wax na ko fa foofu noonu. Euh, ca Sierra Leone ginnaaw ba mu janoo ak euh, seen président ngir apaiser aussi cette euh, situation bi nga xam ne ñoom du ñu ngi koy dund mm-hmm. depuis wala ñu ngi koy dund vingt six depuis vingt six novembre loolu nag moo foo daal yóbbu woon moo tax ñu daal di koy tontu ci loolu li askanu Sénégal aussi képp koo xam ne rek mën nga yaa ngi tontu indi moom daa am poste France est-ce ñoom ñoo koy yónni muy dem foofu non <laughs> envoyé ah, spécial waaw ah xam nga président dem doo waaw est-ce que du poste postu bi. lay lay anticiper moo tax. non est <laughs> président dem pour waxtaan ak mënum président mais daal li ci mënti am daal mooy que askanu Sénégal ñoom ña ngay daal di euh, mettre loolu yëpp moo waral nag Seydi Gassama am Amnesty International. moom mhm. itamit daal di génn daal di euh, mettre du la nga xam ne rek euh, njiital réew mi président Macky Sall def na ko foofule alors que réewam. Mhm. mi ngi am tension boo xam ne bëgg nañ ñu apaiser ko. Mhm. ndax xam nga président. waay. dafa contrôler bal ba desul lu dugal dafa def contrôle bu rafet ba desul lu dugal. mu mhm. téye bal bi nag nangawu ko dugal parce que eh, gis nga sénégalais yi malgré mën ñu limal président lu bari loo xam ne nii xëy na jëf na ko mu metti sénégalais yi. Mhm. Euh, ñu bëri ñàkk ànd ak moom ci politique am. ñu bëri jàpp ne jaay doole la nekkee. mais gis nga bis bi mu taxawee ne euh, Renaud defut troisième candidature. Mhm. et dina teg candidat am. choix. Euh, suñ ci jugee ñu dem ci élection gis nga loolu bu ci tegoon rek bàyyi ñi nga xam ne ñoom lay jàpp ay nit ñoo xamante ne mérité wuñu prison parce que xam nga lu gën a garaaw mooy yow da ngay dox ci mbedd mi yow mu leer ne diw mee nekk prison moo la ëpp yara fukki junni yoon c'est des gens yoo xam ne xam ngeen saa yi da nga gis nit ku sikk sax ñu jàpp ko nga ne ah waa ji moom da doon coow rek. Mm-hmm. mais dangay gis nit yoo xam ne c'est-à-dire amuñu benn problème. des gens yoo xam ne du taal mënoo leen jiñ taal. mënoo leen jël wax wax wax wax cest à wax yoo xam ne moo gën a yomb mënoo leen jiñ wax bu dépassé. dëgg la nekkuñ ci yooyu c'est-à-dire des yoo xam ne mérité wuñ prison nga jàpp leen président Macky Sall ba mu annoncé ne deful troisième candidature bu si tegoon yolomal loxoom. Mm. ay ñoo xam ne jàpp nañ leen depuis mars jàpp jeunes yi di leen wax ay dossiers xaw ma lan. Kaba Diakité mi ngi ci prison bi. nekkoon responsable fële ca ca ca Pastef. lan lan lan lañ mën a tuumaal Jamil Sané. Mm-hmm. le maire Diamine Sané maire bu Parcelles et d' autres tant d' ñoo xamante ne nii xoolal ñii ñu bàyyi récemment Diop Taïf bi ñu bàyyi. ak ki nga xam ne moom moo di euh, ki dëkk Poroxaan te démb ñu ko doon defal ak accueil bu bu am solo boobu. donc ki doon borom yëre yu weex yi doon ànd ak Ousmane Sonko donc ñu doon ñoo xamante ne nii euh, dañ doon. dañ mm-hmm. doon dañ dañ leen di jàpp ci. loo xam ne paate voilà paate la tudd. ñu doon xamante ne nii. mais héros mais héros la ñuy mais héros la ñuy héros doon parce gis nga vidéo bi nga xam ni. Euh, proxaan bi ak limousine aussi. moom itamit garde corps Ousmane Sonko ba mu génnee aussi gis nañ ne këram. Mhm. Euh, wala village am gis nañ ni accueil bi nga xam ne am nañ ko maanaam dañuy gis que ne euh, jamono ji di kuñ jàpp parce que auparavant dañu gis boo génnee prison après nit ñi dañ lay daw. Mhm. bala ngaa duggaat société bi. Mhm. dafay nekk problème mais jamono ji nii da ngay gis koo xam ne dafay génn prison héros. bala ngaa comprendre li xew la la dangay dem déglu euh, wala nga dem seetaan euh, li li li gars yi euh, ñi nga xam ne dañuy faral di dem di seeti les familles des détenus nga déglu discours yi nga xam ne wala xeetu discours yi nga xam ne moom ngay dégg. ci ah. seen ay parent muy seen i yaay seeni i seeni seen nijaay mooy les gens ont compris ne lii gàcce mooy seen doomkat dañu ko jàppale fale muy agressé. wala seen ah. doom dañu ko jàpp si loo xamante ne ni lu lu lu lu wut ak yoon la mais des jeunes sénégalais yoo xamante ne nii mënu leen reprocher dara lu dul bëgg seen dëkk mënoo leen reprocher dara lu dul appartenir à un parti politique wala ñu euh, intéressé wu ci mbiru activisme mhm. c'est-à-dire mënul amul leneen loo xam ne mën nga ko teg si seen kaw lu dul lu dul lu dul loolu nga jàpp ñooñu tëj ci kaso bi seen i parents aussi ils ont compris que ñii xëy na ay victimes lañu euh, ci Euh, seen choix politique wala seen choix wu dugg ci mbiru politique mais du leen loo xamante ne nii euh, lu ñàkk fayda la wala lu tegul ci lu ñu dugg xam gàcce la ñu ne jàpp nañ doomu diw parce que dafa doon agressé mhm. donc les sénégalais aussi ont compris cela xëy bu njëkkoon nit bu ñu ko daan jàpp euh, prison dafa daan fekk ñu ne rey na nit wala sàcc nañu yóbbu ko prison. voilà kii mi ngi wax oustaz Assane Seck effectivement. xoolal xoolal kaa oustaz Assane Seck lan des gens yoo xam ne moom mooy li ma lay expliquer nii yow mi toog si mbedd mi sax da ngay xam ne bu fekkoon prison am na yow yaa leen ko gën a mérité parce que defuñu lenn loo xamante ne nii war na leen mën a dugal ci kaso. Hmm. donc situation boobu noonu les sénégalais à un certain moment il vont comprendre que ni euh, il faut que il faut que ñu comprendre ni euh, ñoom. amul dara lu leen war a mën a dawee bu doon dañ leen diw dafa rey nit boo génnee dinañ la xool. non léegi moom te tamit euh, ñi ci nekk prison bu ñu génnee ñu ngi yor seen bracelet bi nga xam ne euh, dafay symboliser que ne kat Ousmane Sonko la ñuy jàppale. maanaam mu am benn changement boo xam ni euh, nemmeeku nañ ko ci ñoom. et que mm. li ni aussi war na nekk benn leçon boo xam ni régime actuel ñu ngi war nañ ko ci mën a jàng que ni mm. auparavant prison boo dee koo xam ne dafa def crime wala mu def délit wala dara. Mm. boo ko fa dugalee bu génnee société bi pour mu duggaat ci problème lay doon. et que même itamit sax pour mu duggaat société problème lay doon mais jamono juñ toll ni euh, da ngay jàppee nit ki ci mbirum politique rawatina mu ànd ak Ousmane Sonko mm. su génnee boobu lay gën a euh, dogguwaat ci ànd ak moom kon da lekk leer que jàpp maanaam jàpp nañ leen gaa mais ñu ngi leen di tamit rendraale benn service boo xam ne rendre aussi service euh, Ousmane Sonko ak ay ñooñam parce que tamit dinañ mën a yóbbu liggéey bi liggéey bi projet bi fu sori. Mm. et aussi tamit na yokk électorat parce que koo jàpp fan yoon tamit Euh, euh, gëw ma mu ànd ak yow. ñaata ñaata ñaata gëw ñaata xale ngay jàpp yoo xam ne seeni ay parent su ñu leen jàpp woon xëy na ci. Euh, parti benn bokk wala coalition benn bokk yaakaar lañ naroon voté li jël. donc moo li ma lay expliquer sànq. gis nga nit ñi gis bu doon bu njëkk xëy na boobu yii bareegul maanaam prison dafa dem ba dañ ko banaliser. da hmm. jàpp nit si yu ñàkk fayda quoi. xam nga da ngay da ngay banaliser prison bu njëkkoon boo déggee diw diw dem na prison da ngay xam ne lii cas bu sérieux la. diw rey na nit wala diw sàcc na wala diw def na yenn infraction ñu tëj ko police donc naturellement euh, sénégalais yi ci ñàkk a miin wala ñàkk a miin bu ñu ñàkk a miin euh, euh, prison wala ñàkk ko fréquenter dafay tax. dañuy ragal prison boobu ba ku fa jógee sax dañu lay ragalaale. Hmm. mais boo demee ba benn instant benn ku tudd Zahra Wague ah Tambacounda Ousmane Sonko def caravane war a jaar foofu ñu taxaw quelque part ne dañ koy teeru ñu fekk lañ fa jàpp ko yóbbu defeere mm-hmm. nga gis situation yu mel di ko dund chaque jour da dem ba da ngay comprendre ne ndeke mbiru euh, prison kat fi mu ne ci réew mi nekkatu fi euh, mbiru délit wala wala. dañ ko banaliser wax dëgg fa neex fekk la nga taxaw ñu jàpp yóbbu defeere mm-hmm. euh, et am na si ku jigéen koo xamante ne nii dafa dafa dafa dafa demandé woon liberté provisoire ba ba ñu ba ñu may ko ko. le procureur s'est opposé ba ñu waat ko ci biir prison bi <laughs> donc situation nit ñi di ko gis et les ñu ngi xëy di seetaan matinal bu 313 digital dara du leen rëcc effectivement dara du leen rëcc rawatina mm-hmm. ci wàllum euh, information que ça soit ci politique beeg leneen. Mm-hmm. Euh, sociétal bi euh, maanaam thème yoo xam thème sociétal lañ ko daal di waxtaanee aussi politique tamit ndiki noonu lañ koy daal di demee dara rek dootu leen rëccate ci wàllum information ndax yéen a ñu fi tax a toog pour ñu leen daal di servir waaye tam di leen daal di jox information yoo xam ne yu tàng jër la ba tax na rek ñu doon waxtaanee ci mbirum prison yeeg li mel parce que gis nañ ne ku génn kaso rek mën naa ne héros ngay doon. fa nga xam ne dafa nga daan dëkk parce que dañ ciy gis ay cas yoo xam ne bëri na Diop ak ki nga xam ne aussi moom mooy borom maintien rek euh, Falla Fleur moom itamit gis nañ euh, ko mhm. euh, démb vidéo yaa ngi circulé ci réseaux sociaux yi mhm. mampate aussi gis nañ ko proxaan vidéo yaa ngi circulé aussi ci réseaux sociaux yi mhm. moo waral dafay